demam nga umpuna mindéef te um na boppub kuy mindéef kudul malaaka ya ko wuuf ak yàlla ak ñamu ko wax yoneen ba ak ënglu badar yori mbiram di ko defar moo tax xamee su lu wér demiinu yoneen la ko jox la dala njurbal ba këram malaaka ya sappe ni gorom di ko bijjanti di gërëm te di ko sabbaal di ko jox way deeye jokk woon fa moom te bokki jullit yi bokki talibe yi noo ngi leen di nuyu te di leen ziyaare di jiital ci nuyu bi kilifa ak yoon wi cheikh muhammadul muntaka di ñaan sunu worom wan nu kiimaanu gudd fan ci jëmm di bu baax sëriñ ahmadul muxtaar mi nekk ci bopp njabootuk ak cheikh mouhamadul moustapha di nuyu mboolem ahfat cheikh mouhamadul moustapha yëpp di nuyu mboolem njabootuk suñ tuwaa gi di ñaanal ñëpp yërmande yi suñ borom ak njëgalam boo ngeen gisee jataay bii muy daarul xuddus nekk ci wàccaayub bisub sëñ Tuubaa muy bis boo xamante ne ni taalibe sëñ Tuubaa yëpp ko war a bàyyi xel bis boo xamante ne ni jullit yëpp ko war a bàyyi xel bis la boo xamante ne ni Sëriñ Tuubaa ca ba mat suñ borom nangul ko léppam mu daan ñaan ci mbawaay bu raxmaan ni borom na def bis bi ci samay bis muy bis bi may dajeeg yow bis boo bii ci la ñëwee ci dëkkam bu tedd bii di Touba bis boobee mu ñëwee ci dëkk bii di Touba ba ci muharram yi ñu taxaw ci la am téeméeri at ci dëkk bi sëñ Moussa nag daan ko wooteel bis bi naka jëkk di ci fàttaliku sëriñ bi di ci fàttaliku itam sunu daaje ëllëg yamul xiyaam ci kanamu sunu borom subhaanahu tax mu waxoon ni bis bi ku fi fanaan si sunu borom jéggal la say bàkkaar waxoon ni itam yaa yitte yu jar bañ a fanaan si Tuuba guddi asirina muharram sunu borom sakku ko doon wax itam ni comme yor yaari mbubb na la jaral jaay mel na ma te ñëw. doon wax itam képp ku yor loo may jox te am mbokkum taalibe mu bëgg a ñëw te amut lum lu mu paase lu mu tontoo saxaar gi jox ko ngeen ànd ñëw roo laa bëgg ñu fanaan financé nga xam ne kon bis la boo xamante ne ni jàng alxuraan ak jàng xasida istixfaar salaatu ala nabi nga xam ne faneen fu ko waaye fanaane woon te yàlla tax war ngaa rafet njott bu baax a baax ci ak njëggal ci sa bopp rawatina nag nga fanaan ko Touba gii nga xamante ne ni sëñ Tuubaa nee noonu lu baax fépp la baaxee waaye Touba la gën a baaxee kon bokk yi bi bisu màggal goog yi moo tax ñuy yëkkati sunu kàddu ak woote bis boobu yi nag ñu bëgg koo waajalee genn guddik ajjuma goo xam ne le 18 lañ koy def muy alxamis ci guddi ci péncum Daaru Xuddus ànd ko nag ak kuréel yi nga xamante ne nii naka jekk bisi xasida yi Cheikh Mouhamadul Mountakha daan woote ñoo baaxoon di ko ànd muy mafatihul bisr ak safinatul amaan bu keere mbay ak majmaun noreyni muy ñaari guddi ndakaaroo ak wilaaya ñu ngi soññ nag mboolem kuréelu xasida yi mboolem jàngkati alxuraan yi mboolem jàngkati xasida yi ci bis bii nga xamante ne nii ñu ngi koy lay bisub sëñ Touba bii nu jëm te sëñ Moussa waxoon ni ña ko doon gunge ànd ak moom njaareem ñëw fii ci tuubaa saa yu bis bi del siwaatee fii la ñuy fanaan ak moom ku fi bokk fanaan ak ñoom suñu borom jéggal la say bàkkaar te sëñ Moussa xam na yàlla te xam na ni bis penc dana taxaw loolu ñu bàyyi xel bu baax a baax ni bis bu bu bu bari ay njariñ la bis bu bari ay mbóot la waaye nu bëgg ko lay taay nag njàngum xasida ak njàngum alxuraan def ko guddig ajjuma te sëñ Tuubaa moo waxoon ni zikrul ilahi maa zikril mustafa bil mathi wa salaati hasbi wa kafa tudd yàlla ak julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doy na ma te doy laanu tudd yàlla nag jàng alxuraan a ci jiitu julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàng xasida yi sëñ yi ci jiitu aasubillahi min asheytaan irajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatuhu eh, mbokki taalibe yi ñu di nuyu bu baax a baax di leen siyaare di saf suñuy kàddu rek ci yi sëriñ Ahmadou Ndiaye ngeraan ci kàddu yi am solo yooyu mu yëkkati ci bisu mag bi nuy waajal muy bisu sëriñ Touba di téeméeri at yi sëriñ bi ñu bisee Touba ci waajal nag guddi ajuma gu am solo ni ñu daan def bu ñu tam xaritee ba ca suba lañ daan tàmbali di ko gàttandu gàttandu bi ak njàngum alxuraan ak njàngum xasida njàngum kuréel eh, ren nag ñu yokk ci nag guddig àjjuma gu mag goo xam ne eh, dañ koy waajale téeméeri at yi di ko waajale bis bi ni ko sëñ Ahmadou Ndiaye allah mi doon alxames bii di ñëw le 18 muy amee ci mbaarum Daaru Xudoos mi ak li aju ci penc mi lépp rek eh, soññ nag mbooleem kuréel xasida yi ñi aju ci léegi bi ñu tudd léegi ak ñi nga xam ne sax xëy na dañoo bokk ak ñoom sëriñ bi rek wala ñu bokk ak ñoom nekk Daaru Xudoos dañu yor ay kuréel xasida ñu ngi ci woo ñëpp bàyyiwuñ kenn damay bañ a di lim di am ku waaye ñu ngi ci woo ñëpp xam ne njàng mi incha allahu rabbi ñu ngi bëgg door buñ sa buñ sëlmalee gee muy muy vingt et une mooy neuf heures ci guddi incha allah noonu lañ koy wéyale ba cinq de matin bañ bañ salaatu nga xam ne buñ ñaanee rek dañuy dugg ci jàkka ci julli buñ ñëppee mën a yeewee maa ngi ci soññ nag kuréel yëpp di soññ soññ bu baax baax nag ci wàllum njàng mi xam ne ndigal li ñu sëriñ bi joxe joxit mooy euh, njàng mi ñu taxaw baax a baax waaye nag ñu dëppale ko ak euh, njàng mu njëkk ma euh, mag ñi daan jàngal sëriñ bi njaarim mu daan dégg nee na daa bëgg daal njàng mi ñu ñu fexe mu dëppoog loola nañ dellusiwaat njàng mooma xam ne joxe ci ndigal ci kuréel yi lañ lépp lu ñuy jàngit nañ ci boole gis bu ak maay bu ak muxaddimaat ak miim ya ci daaju bàkk si ma sàmm ñi nga xam ne ñu daan jàngal sëriñ bi ak xasida yi nga xam ne ku bàqi daana ko joxe ndigal ñu koy jàngal ca njaarim sëriñ bi wax ne ne nañ dellu siwaat loola ndax loolu bëgg mu si waat kon ñu ngi ci soññ kuréel yëpp kuréel gu ko ci xam ne euh, teew nga te xëy na xataay tax ba mënoo bokk bokk ci njàngam yëkkatam it nga xam ne njàngam durus ma lépp ci liggéey bi la bokk kon ñu ngi ciy soññ ñëpp incha allah alxames bii di ñëw incha allah bu nu jullee geew daf vingt et une heure incha allah ñu fanaane ko ànd ko nag a kuréel buñ jullee ba noppi mu ne fii di yëkkati minuit jot ngir di ko waajal bis bi loolu it incha dara dara dara du ca dog waaw dinañ ko tàmbali ci bu ñu ah, tamxatee ba ci suba ga mooy asura ah, ah, bi incha allah noonu lañ ko wéyal ba àgg ca màggal ko incha allah loolu it nañ xam ne buñ ko defee guddi ba xëyit programme ba moom it day continuer di kon kuréel goo xam ne daa daanañ la woo it incha woo incha allah fas fas ko a ànd ak mbokk taal bi yëpp. alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhadi amin sayidina muhammadil makin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi sawiran wa tamkin asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit mbokki taalibe yi rawatina ñu ñu seetaan noo ngi leen di nuyu bu baax di leen jaar di leen dokkeel di ñaan Cheikh Amadou Mountakha mu gën a fegg gën a wér di ko ñaan Cheikh Amadou Mokhtar waaye mbooleem njaboot Cheikh Khadim gépp rek waaw ni ko mbokk yi waxee su ko waral mooy bis boo xam ne bii bisub Cheikhul Khadim la bu Cheikh Amadou Moustapha daan taxawal Cheikh Khadim ci ndigalam waaye ren ji nag mu mel ni da caa am lu ci gën a dolliku ren ji ni ko suñu amoon waxee mooy téeméerul at bi sëñ bi ñibbisee Tuuba ak léegi ren ji yaakaar na Cheikh Amadou Mountakha joxe ci ndigal ci ñu gën koo yaatal waaye gën a xamle taalibe yi sëriñ bi loolu nag moo tax kenn ku ne fànn ba nga nekk nan nan ko doon doxee da ko yaatal ndax ñëpp xam ni baaxoo nañ def saa bu ñu demee ba en bi suba si rek la tàmbalee fa ba keroog mag ba keroog magal gi di ñëw guddi gi jot ni ko suñu Xaadim waxee kuréel yi dañuy yendu dañuy dañuy dundal guddi yi ci jàkka daa xudus waaye ren jii nag ni magal gi toll ak fi day bi toll kon moo tax ñu gën koo yaatalaat nga xam ne kon dañoo tànn génn guddi goo xam ne bii guddi ajjumal goo xam ne ni mu ko waxee dañuy tàmbali ginnaaw ba noppi ba mu ko waxee nag ñu ànd ko kuréel yi nga xam ne baax nañu ko baax nañu ak ñoom ak yeneen waaye nag ku wax ku uh, kuréel it wax njàngum uh, durus mu tàmbale ci alxuraan ja ak xasida ndax ginnaaw bis bi bis Seex Xadim la Seex Xadim nag bis boo koy defal la ca war a jiitu mooy alxuraan waaye ak xasida waaye ku mun alxuraan mënoo xasida it war ngaa man askar boo man goo man rek mën nga koo def kon ni mu ko waxee muy alxames ji alxames ji di ñëw kon ci lañ ko fas yéene def fii ci mbaarum Daaru Xudoos di ko di ci woo nag képp kuy jànkatu alxuraan wala ngay wala ngay jànkatu xasida ndax bisu bisu seen xadim la kon ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñoo ko bokk ren nag mbir mi daal dafa spécial moo tax ñu gën koo yaatal bu baax a baax baax moom daal ñoo ngi soññ mboolem jànkat alxuraan yi jànkatu xasida yi suñ jikkee nañ nekk ci kuréel nekkee ci kuréel ya ñu ne nañ nekkee noonu ci alxuraan ji ak xasida yi rawatina a jàng rek ca dem ci am ci yeneen liggéey liggéey Cheikh Xadim mu def ko bu kon daal ñu ngi koy soññ ñëpp muy guddik ajuma gu ñu fanaane ba sa man set incha ni mu ko wax buñ ca jógeet du tee dañuy wéyalaat Euh, dañuy wéyal di dindal guddi yi waaye guddi yooyu it nag ñoo ngi leen sakkuwaat ci mbooloo mi nit ñi ci guddi ajuma gii ci ci njàng mi bruskat yi noonu lañ leen di woowaatee ci guddee ci yëpp ba kere ñu egsi ci bis ba ñu def ko noonu ko bëggee ndax ginnaaw ne woon na ku ko fa fanaan waaye ca fanaan fanaan fanaan nim ni ko santaanee boo yeewoo set wik ci ay bakkaar loolu nag ku ko bëgg a def da nga koy laytaay waaw lii nag ab laytaay ci boo xam ne bii soo ko soo ko ak ay bis jàpp nañu bàgg bàggee ci guddi ga nga waral mbir ma dana tax nga man ko dund na nga ko war a dundale kon daal ñoo ngi ciy woo jànkati alxuraan yëpp ak jànkati durus yëpp di ñaan suñu borom yóbbuñu ci ak jàmm di ñaan nag ñu am ci ngërëm Seex Xadim asalaamaaleykum wa rahmatullah damam nga ump na mindeef te um na bopp kuy mindeef ku dul malaaka ya ko wóof ak yàlla ak ña mu ko wax yoneen ba ak ëhlu badar yori mbiram di ko defar moo tax xamee su ca yonen la ko jox la dala njurbal ba këram malaaka ya sappe ni gorom di ko bijjanti di te di ko sabbaal di ko jox way deeye jokk woon fa moom te nekk bar